bonjour monsieur le président merci monsieur le président asalaamaaleykum cher ministre maa ngi leen di nuyu monsieur ministre des finances et du budget monsieur le ministre du travail monsieur ministre des pêches euh, et j'ai en profité nuyu délégation yi ngeen àndal nuyu sama frère euh, l'ancien DG de la l'APIX et le nouveau directeur général du port autonome de Dakar Mountaga Sy mais ana sama maire dafa tuuti ba mënuma ko gis le maire Valdiodio Ndiaye derrière maa ngi kaa nuyu di ko ziar euh, di nuyu ñëpp di leen wax monsieur le ministre euh, man dama ñëw c'est sera très difficile de parler derrière mon fils Guy Marius Sagna mais j'ai essayé quand même de relater ce que je pense et ma pensée euh, de se ministère monsieur le ministre euh, waxoon naa la ni la li nga xamante ne mooy. Euh, marché central au poisson bi nga xam ne notre frère moo koy diriger ñu jël recette yi waxuma sax léegi moitié entièrement la wax parce que la la réponse ne ma satisfait pas donc léegi waxuma sax moitié jël entièrement ma je demande ça au gouvernement de donner l'entière recette au à la ville de Pikine parce que loolu moom mooy dëgg nit bu jëf ñëwee implanté wu ci sa dëkk amoo tali. amoo dara mënoo régler dara dañ lay jox recette ya ca ne te loolooy dëgg loolu inégalité la loolu tooñ la moo tax ma ne dama doon wax mois moitié ñuy tëb réponse bi léegi dama ne entière monsieur le ministre dañu wax ne joxe nañ vingt et un licences aux étrangers joxe cent quarante licences aux bateaux nationaux defe naa loolu waxoon naa ko gis naa ko ci rapport bi wante man dama jàpp ni li tax réellement que nag ma bokk ci ñi nga xamante ne immigration laa def xam naa ni immigration clandestine commencé wul ren commencé wul daaw te du jeex tamit après vous avant vous et après vous day ñëwaat mais quand même flux bu mu am actuellement amatu ko woon lan moo ko waral dañ ne géej gi amatuñu ay jën moo tax nit ñi nappatuñu ñii ne repos biologique la ñii ne du repos biologique dañoo jaay ay licence yu bees yoo xamante ne dañ bi nga ñëwee sa ministère ak tey lañ ko fi jaay moo tax ma laaj la keroog nela lan lan moo ci am réellement la réponse n'est pas venue monsieur le ministre loolu ma ciy jaar di la wax le contrôle de nos côtes ça vous revient ou ça revient à la police ou à la gendarmerie si c'est le cas prenez toutes vos responsabilités ngeen àndandoo yéen ak sa ministère ak gendarmerie ngeen contrôler suñu côtes yi parce que ce budget là n'a pas voté pour faire du mbaxalu tubaab monsieur le ministre man jàpp naa ni euh, la collaboration de la gendarmerie dina am solo ci surveillance bi wante volonté wu ministère bi aussi dina am solo ci surveillance de nos côtes pour xale yi dootuñu embarquer ak deux heures ak trois heures du matin je pense que nag waxoon naa ko ba pare a wax ak koo xamante ne xëy na booy wax ak moom parfois da lay ŋóobi parfois da lay ñaawal amul benn sens wante nañ ko wax rek te dee jóg fi dem maa ngi nuyu général Djibi Ndiaye bu baax a baax ak ñi mu àndal merci beaucoup. merci honorable la parole à la parole est à Sanou Dione se prépare euh, Ndeye Fatou sugu Salaamaaleykum, Monsieur le Président, Monsieur le ministre du Travail et des Finances, Monsieur le ministre de la Pêche, maa ngi lay nuyu di la gërëm di la féliciter une fois de plus donc di ñaan yàlla responsabilité bi la yàlla jox mu oyof ci ak beaucoup de réussite. Monsieur le ministre temps bi gàtt na ay question la yu ci bëri parce que du ci mën a première question bi rek mooy euh, une contribution contribution par rapport à la marine sénégalaise ak li xew parce que temps yi vraiment au niveau de euh, ñi xam géej yëpp xam nañ ne période bi période du sedd la xëy na période yi passé le temps était tellement climat que xale yi dem euh, ci mbëkk mi c'était pas trop c'était trop risqué mais bii moom dafa gën a aggravé wu est-ce que suñu marine national am na ay yoo xam ne mun nañu mun a survoler pour mun a surveiller la kii daal surveiller gaal yi c'est une question beneen bi beneen question jëm ci pooru Ndayane pour xam kañ la war a pare ak pooru Ziguinchor parce que on y compte beaucoup d'espoir beneen bi lu jëm ci ton gis naa ne tubaab yi bëgg nañ trop ton te dans le cadre des projet des cantines scolaires defe naa ne buñ ci liggéeyee doon na mun a aider dans le cadre de la de notre politique des cantines scolaires au niveau de, des établissements scolaires donc ñu xool naka nañ ci mën a beneen bi remercier le président de la commission vous remercier par rapport de visite bi ñu def port c'est bien hein? je m'en flamme c'est vrai que visiter nañ ko c'est bien gis nañ ne désencombrement am na alhamdulilah gis nañ fa am na capacité maintenant pour recevoir les gros navires ok à un moment donné on avait pensé avec le port de de de Ziguinchor mais gis nañ ne mais man suma inquiétude mooy Sénégal moom on est très fort mais li may ragal mooy est-ce que am na suivi est-ce qu'il y aura un suivi par rapport à ce qui s'est fait au port c'est bien c'est vrai il y a un désencombrement on a vu les gros navires information bi ñu am le taux d' activité a augmenté mais ñun souvent suñu problème problème mooy euh, c'est-à-dire le suivi ak le maintien de nos acquis donc c'est c'est une inquiétude j'ai pas dit que vous n'avez pas la capacité dama ne loolu pour ñu prévoir que vraiment cette performance là ñu dem parce que à un moment donné nag le port de le port de de, la Côte d'Ivoire même de la Guinée daf ñu xawoon dem mais comme que dem nañu ba jëlaat élan bi par rapport désencombrement mais beneen désencombrement bi mooy son problème ce que le directeur a réussi au port, l'intérieur, mais au niveau de, bon, peut-être vous, vous, me que ça ne vous concerne pas, mais il faut impacter un peu, c'est-à-dire l'extérieur. boo xoolee route jëm Bel Air jëm les gros porteurs là ñu ngi foofu est-ce que foofu en accord avec la commune de commune de Hann est-ce qu'il y a pas un travail que vous deviez faire pour essayer de désencombrer foofu parce que guddi gi y a trop beneen bi camion yi wax naa commission toujours ah vous me direz que c'est pas votre domaine mais camion yi chargé biir port bu ñu génnee rek paan est-ce que mënu leen jël benn code boo xam ne camion balaa moo chargé ci biir port bi mu réussir des normes des fois da ngay gis camion chargé génn ci biti da ngay yaakaar sa camion bi day waaye daanu donc man est-ce que vous ne pouvez pas prouver avec le ministère des transports avec la police camion balaa moo chargé te mu nekk dans les normes camion buy def vingt tonnes chargé quarante tonnes muy daw ci tali bi vraiment tu as l'impression que day waaj daanu loolu aussi je pense que ne beneen beneen bi nag foofu laay terminer mooy le repos biologique man en matière maritime je ne me connais pas trop mais dama dégg na pour le repos biologique des fois dañ lay jël ay carcasses voiture di ko sànni ci géej gi trente quarante pour cent j'ai appris que le gouvernement va renouveler le parc saa yu rek ba jox leen oto oto yi ñu leen changé dañ koy maintenir accord est-ce que c'est pas l'occasion quand vous quand on aura peut-être que ce ministre des finances moom question bi quand on aura renouvelé le parc automobile oto bu ñu renouvelé rek sànni ko si géej gi il paraît que c'est bon pour le repos biologique mais renouveler ay ay car yi nga xam ne sa date avant l'indépendance bàyyi waat ko ak ñoom aussi ça ne sert à rien ça nous permettra au moins d'assainir quand même euh, que, que notre donc beneen bi nag foofu mooy sama dernière question mooy ah, jeex na boobu merci honorable la parole est à l'honorable Ndeye Fatou Sougou se prépare madame Adama Boukounta Thior